oto bi Anta babakar mi ngi noonu du di yéeg ànd ak euh, sécurité bi presse bi nag dañ koo fatt taraj waaw mi ngi sol sol lu weex takkul ay verre ak ay ci gàtt euh, yére bu weex bi ab borode la teg teg ci benn euh, musóor bu weex donc mu ngi noonu ànd ak gàngooram voilà euh, président président bureau de vote bi mi ngi naan euh, mi ngi ñaan pour que ñëpp teelu mi ngi naan silence voilà voilà Anta Babacar dugg si na mu ngi ubbi saagam pour génne xam naa carte électeur am wala carte identité am euh, pour présenter ko présenter ko ki nga xam ci ni mooy président bureau de vote bi mi ngi koy génnee ak ak ak jafe-jafe nag xam naa dafa xat voilà génne na ko génne na ko jox na ko président bi euh, léegi nag président bi mi ngi vérifié. fii la président bi tudd na turam Anta Babacar Ngom léegi gars yi ñu ngi vérifier li nga xam te ne ni moo nekk ci euh, ci registre bi gars yi ñu ngi dugg ci ñu ngi xool li nekk ci registre bi pour vérifier ndax euh, effectivement euh, turam mi ngi ci biir registre bi ñu ngi vérifier voilà léegi président nee na ko demal nga jël vérifier nañ gis nañ ko président nee na ko demal nga jël demal nga jël xob yi mais tu gênes da ngay reculer am ngeen place reculer leen. voilà Anta Babacar mi ngi noonu voilà Anta Babacar nag euh, bosom lay njëkk jël voilà bosom lay njëkk jël euh, jël ci beneen bi nga xam te ne nii mooy bosu professeur Daouda Ndiaye ñu xool mu ngi jël beneen bu bu jaune bi nag daf ma sori mënuma ko xam exactement Déthié Fall Déthié Fall la jël jël na bu. Euh, dafa mel ni bu Diomaye bi la jël coalition Diomaye président jël na bu bu pur donc voilà euh, ak euh, jël na daal yi nga xam te ni en tout cas jëlul bu Amadou Ba moom donc c'est la vérité donc jëlul bu Diomaye bi non jëlul bu Diomaye bi waaw jël na daal loo xam te ni merci mu ngi dugg ci mbañ gàcce gi fee am na yoon yoon baa ngi foofu voilà mi ngi noonu di dugg ci mbañ gàcce gi voilà dugg na bay génn na ci ci bañ gàcce gi léegi nag mu ngi noonu euh, journaliste yi ñu ngi ko topp mënul sax jàll ndax journaliste yi ñu ngi ko topp salaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom mi nga xam ne may nañu tey ba ñu mën a dugg fii ci suñu bureau de vote voté nga xam ne lii waroon nañ ko def depuis le 25 février mais ay jiixi jaaxa tax ba tey lañ ko mujjee def donc dañuy sant yàlla ginnaaw loolu may sant le peuple sénégalais sénégalais yi ak sénégalaises yi ci seen taxawaay ci seen gëm-gëm bi ñu gëm démocratie ñu permettre ñu nag ñu wane xar kanamu Sénégal ci taxawaayam ci Afrique ak ci monde entier en tant que réew bu am démocratie bu fonk justice donc lii ndam la ci ñun ci peuple sénégalais euh, damay taxaw tamit féliciter remercier suñuy responsable suñuy militant bu ARC alternative pour la relève citoyenne bi ñu tàmbalee aventure beeg léegi juróom-ñetti weer la juróom-ñeenti weer je pense que marqué nañu histoire politique du Sénégal te loolu ci liggéey bu farlu liggéey bu dëggu liggéey bu jub liggéey bu sincère ndaxte ànd nañu wër Sénégal yëpp jëlee ko Oussouye ba Ourossogui Saint-Louis ba Kolda gisanteeg sénégalais yi saafonteeg ñoom mais surtout déglu leen déglu seen i mbébét ak seen yéene gi ñu am ci Sénégal ñun ñii tamit ñu partagé leen suñu gëm-gëm suñu bëgg gi ñu bëgg Sénégal ak suñu yéene gi ñu am pour liggéeyal leen ma ciy defal nag jéggal bu spécial jigéen ñi nga xamante euh, ci gunge bi accompagnement bi ak taxawaay bu dëgër bu farlu bi ñu am suñu wet di wax nag ñëpp surtout responsable yi ak militants yi nañu rester vigilant nañu li continuer liggéey bi te moytu bu baax surveiller élection bi ba nga xam ne benn jiixi jaaxa du ci am ba loolu bu jàllee loolu bu jàllee euh, ne luy jot jot na ndaxte am nañu opportunité tey bindaat histoire u Sénégal lal ko ci démocratie opportunité la tamit ma encourager féliciter yeneen candidat yi nga xamante ne ñoo àndandoon dem ci élection bi du woon lu yomb fukki fan ak ñaar pour wax ak sénégalais yi ñoom itamit ñu tànn seen président de la république ñu def ko ci jàmm def ko ci salaam donc tey ak xel bu dal ak surtout xol bu sedd dane liggéey nañ lu ñu waroon liggéey liggéey nañu liggéey bu jub liggéey bu jaar yoon donc di sant di gërëm ñëpp di ñaan yàlla au nom de la démocratie ak teg ko ci jàmm ñu fal suñu prochain président wala présidente de la République du Sénégal jërë ngeen jëf